association bi ñu ngi ko créé depuis deux mille mille deux association bi day jël xale yi nga xamante ni dañoo am handicap sourd et muet parce que président fondateur bi Ibrahima Ndiaye dafa gis ne yaa a beaucoup de sous am na sous yu bëri yoo xamante ne ñu ngi leen ñu ngi leen cadré ci yalwaan. Mm-hmm. mooy dugg ci bis tàllal loxo ñu may la nga génn dem mu ne nag moom lii du solution. solution bi mooy fexe def si ñoom xam-xam ba ñu mën a demal seen bopp même bu fekkee dañoo am handicap loolu moo tax mu créer association bi mais à l'époque atelier la woon rek comme ñëpp. di hmm. produire di jaay. Mhm. mais nee na moom mënul gis xale yi am handicap société bi xaw leen a beddi. marginalisé voilà mhm. mu ne moom day jël xale yi def si ñoom métier te il a prouvé def na résultat yi. Mm-hmm. parce que man si première génération bi laa bokk d'ailleurs soumier yu bëri jamono ji yoo xam ne am nañ atelier poterie place am lañ génnee mm-hmm. voilà kon moom porté na résultat yu mu bëggoon ci xale yi mm-hmm. ba tey boo fa demee nii da nga fay gis groupe soumier yu bëri yoo xamante ne ñu ngi foofu man mii maa leen di formé te moom moo ma formé alors yow nga nekk chef chef d'atelier donc yow da ngay xale yi fa nekk comme c'est des malentendants mhm. yow naka naka ngay def pour communiquer ak ñoom bay jël métier bi di ko dugal seen bopp naka ngay manipuler seen intelligence waaw benn côté da ngay xaw a maîtriser tuuti la langage des signes ok parce que ñoom am nañ ko voilà parce que xam nga ñenn ñi jànguñu parce que fii benn centre moo fi nekk verbotonal tax xale suumier yi nekk Sénégal yëpp mënuñu fa jànge dëgg la voilà léegi euh, soo xawee maîtriser tuuti langage des signes bi te ñun it presque dañoo judd si ñoom. Mm-hmm. voilà da ngay mën a maîtriser xale yi di communiquer ak ñoom parce que suumee yàlla may na leen ñoom dañuy liir sur les lèvres ñoom sooy wax dañuy comprendre. Mm-hmm. voilà léegi nag si noonu laay méthode yooyu laay jël di dindi loo xamante ne du yoon si ñoom. Mm-hmm. di def si ñoom xam-xam. yaa ngi wax ne da nga si ñoom tey yaa ngi nekk seen biir. Mhm. di di dispenser ay cours ak yooyu. Mhm. sa rapport ak euh, euh, suñu lan la yow sa bopp da nga koy dund moom moom tu victime wala da nga am proche boo xam ne moom la dund. Euh, c'est ça la question deuxième bi engagement bi ngay def envers ñoom lan moo ko motiver. waaw awma benn proche soumis mhm. man dama dama juddu fekk sama waajur di ko def hmm. waaw mais nag ay temps ba may gën a nekk xale sow ma woon noonu waa mais dama toog jour gis leen ñu nekk ñoom ñëpp presque man nañ plus de trente personnes ñëpp ñu ngi communiquer mais doo dégg son entre eux entre eux ma xool li leen yàlla teg ak man li ma yàlla teg ma ne pourquoi que man léegi kii gore na ba formé ma ba ma mën pourquoi man waruma mën a gore ba eggali continuer projet bi mën a former ñeneen parce que loolu mooy réussir ah mooy yow li nga am nga partager ko keneen mu am ko mm-hmm. dëgg xëy chaque jour di may xale bi téeméer jàngal ko nu ñuy amee téeméer moo gën a yomb da am cadre fi ngeen di formé centre la. wala waaw centre la mu ngi nekk fii rek en face gendarmerie Wakam. Wakam. Mhm. voilà centre la à ñu ngi nekkoon cité ASECNA si lañu ñu dédommagé euh, indi ñu fii mairie bi d'ailleurs mairie Wakam moo ñu jox fii ñu nekk. d'accord voilà. mi ngi leen di jàppale aussi. waaw mu ngi ñuy accompagner aussi tamit mairie bi mairie Wakam mu ngi ñuy accompagner mais en tout cas tamit euh, projet la boo xamante ne xale yi ñu ngi siy gis seen bopp. Mm-hmm. parce que koy jàngal mu dem ba commencé produire nga koy bàyyi muy am quarante pour cent te tamit si quarante pour cent yooyu bu demee ba xam ne ne kii kat mën na demal boppam ñu jël si loolu xool fu ñu la placé. ah c'est sa bopp loolu projet la boo xamante ni. Mm-hmm. bu si ñëpp jàppee rek yooyu daal mun na mun na wàññeeku. à quatre vingt pour cent. très bien euh, bon si ñaata xale ñoo nekk si centre bi. en ce moment il euh, y a plus de vingtaine yu fa nekk. Mm. nii parce que la demande bi dafa bëri. mais on n'avait pas assez d' espace. Mm. âge bi ban. âge bi moom mu ngi commencé cinq ans. Mm-hmm. jëm ba dix huit ans dix neuf ans. d' accord si si détection bi est ce que da ngeen ce que waajur yi koo xamante ni dafa yor xale këram moom mooy mooy euh, yore xale bi si kër bi. mënu ko gérer peut-être euh, mu confier leen ko wala yéen yéen dox ñi nga xamante ne ñu nekk si mbedd di yalwaan. Euh, ñoo ñoo ñëw waaw yéen comment ça se boobu nan lay demee. waaw ñun ñenn ñi seen parent yi ñoo amul fu ñu leen orienté ñu indi leen ci centre bi ñuy xëy di jàng métier bu ngoonee ñu wàcc. mais ñenn ñi amuñu famille parent association bi mooy seen parent mooy seen papa mooy seen yaay. fa la ñuy nekk au quotidien fa la ñuy nekk au quotidien fa ñuy fanaan fa la ñuy lekkee fa la ñuy defee lépp Ibrahima Ndiaye nag nekk koo xamante ne moom. franchement ñun mënuñu ko fay. dafa joxe léppam ba salaire am ak tout lépp lay jël di ko dundale booy yooyu. Mhm. uniquement pour ñu réussir. mais mais détection bi je veux dire par exemple da ngeen wàcc ci mbedd bi. non non non xale yi dañ koy gis xam internet dafa yaatu. waaw xale yi ñenn ñi dañ koy waxante seen biir tey mun nga nekk ak sa benn moroom suumiyee nga jékki-jékki gis condition de vie am changé génn na si télé bi mu wax ko keneen wax ko keneen xam nga nit bu dem bay jóge ba ay Tamba pour ñëw intégrer hmm. mais nit bu jógee Tamba wala mu jógee Kédougou wala mu am fu mu mënti jógee wala muy seetaan nii bëgg a ñëw intégrer est-ce qu'il y a des conditions yu nga xamante ni moom ngeen di teg waaw bu fekkee ñun xam nañ am nañ say parent dañuy dañuy jël sa filiation yëpp voilà wax la suñuy horaire nii lañuy ñuy liggéeyee. Hmm. waaw nga accepté ko ñu ànd ak yow. liggéey non non non. c'est gratuit. pas payant. macha xale yi ñoom ñu kenn muusuñu fay dërëm am na ñoo xam ne à l'âge de quatre ans lañ fa nekkee cinquante ans six ans léegi ay majeur nañ voilà.